ci faale ma Sidiki jamono ji nekkatul artiste buñuy ñu présenté fii ci Sénégal ki nga xam ne ràññeeku ne si woy ak mën-mën gi mu am ci instrument bi di kora nekk doom ci ki nga xam ne moo di tumani Diabaté doon ko ràññeeku si milieu musical malien moom nekk mu ngi askanoo si famille ngéwél malienne bu màgg bu ñu duppee euh, famille Diabaté nekk artiste compositeur juddu sa Bamako ci atu 1991 ay ndorteelem si musique daanaka mu ngi ko door ci xeetu musique bu ñu duppee hip hop màggee ci ëtt boo xam ne dafa juddu fekk ay waajuram féetewoo li nga xam ne moo di instrument bu symbolique bii di kora te waajuram bu góor bii di Toumani Diabaté bokk si ñi koy jëfandikoo. moom nag mu ngi ràññeeku gannaaw ba mu amalee way wi mu duppee fais-moi confiance waaw booba tey mu doon ku Sénégal sopp lépp di njëriñu musique malienne bi nga xam ne gëjoon na am jaloore yu ñu mel ci jeunesse sénégalaise rawatina africaine. ki nga xam ne ñu ngi koy woowee le petit prince de la Kora mu ngi def mbégte population malienne rawatina Afrique wërngal këpp muy wéyal tamit di amal ay single ak ay collaboration artistique musicale yu ñu ci bari rafet lu rawatina yi mu def ak Wally Ballago Seck ak Abiba moom ak Abiba sax ba tey amal nañu seen ñaareelu featuring bi ci mujj mu di ab way bu ñu def ci Coupe d'Afrique bi war a am sa Gabon en 2017. Gabon 2017. ci wàllu discographie daanaka 2010 ba tey mu ngi nekk ku actif sur la scène indi style musical bu ñuy woowee afro urban pop ba la jot amal album ànd ci ak waajuram bu góor jël raaya bi gën a rëy ci wàllu consécration musique muy Grammy Award ci atum 2015 loolu di tekki liggéey bu am solo bi mu dëkkee. ki nga xam ne sosoon si soixante-douzième génération Diabaté doon na fierté askan boo xam ne mësuñu def leneen lu dul jouer instrument bi di kora jamono ji mu nekk Sénégal wara amal li ñenn nit ñi duppee performance de confirmation mu di concert bu mag boo xam ne soppe yi ñu ngi xar ci moom soow ak spectacle ànd ci ak rts ndaw lu rëy